salaamaaleykum man la soxna Momy Dia dëkk caara di leen nuye ñëpp ku si nekk turam ak santam. non non mais li ma ci daan faral invité bari na ma ok sama wàllu liggéey parce que damay def make-up mais ay seen YouTube ñoo daan ñëw sama salon ñu daan def. Euh,

bien sûr bëri ay façon ba pare xale jigéen dañ ko bëgg lu melni genre elles sont toutes belles yi daw si télé yi dañ nit ñi dañ koy suivre bu baaxa baaxa baax non make-up moom make-up rek la waaw xeyna kay yi ñuy faral di utiliser mom moy am ay tour mais defar bi mom make-up hmm. non non maquillage waaw pose have sul la ongul maanaam we est en même temps damay ñaw couturière ah bëri na instant yi ay modèles yu bëri yuñ génne ay tissus moulants ak euh, soie glacé yi ñu ngi koy ñëw ay robe yu classé parce que xale jigéen dañoo jël ay sañse yu classe mhm. salaamaaleykum yéen téléspectateurs yi ñu maa ngi leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam di leen xamal ni tey ñu ngi suñu beneen rubrique émission make up di leen wax tey dañoo dalal suñu benn invité boo xamante ni dañ ko war a laaj wala mu exposé koo xamante ni dañ koy defal make up ak yooyu. <laughs> waaw sama invité maa ngi lay nuyu di la wax di la dalal ci émission make up bi. di la wax tey di la laaj tey lan la ñu indil ci euh, make-up beauté mhm. maanaam comme li ngay def moom ay association day permettre xale jigéen ñi gën a mën a wane seen taar côté tey bu ñu leen bëggoon tey moom lay comme suba teel la naaj bi dafa tàng dama xëy def benn retoussé bu simple laal tuuti ay def cils. laa tuuti rose à mais defuma ko make bu fool moo ko def bu simple rek comme naaj bi dafa tàng nga def lu simple bu fekkee ne maquillage ngoon la da ngay def say pigment wala nga def sa glitter mu génne maquillage bi pour ngoon gi mais suba si moom dama def lu simple nii da ngay def pigment wala euh, kii glitter mooy brillante bi nga xam ne day génn yooyu ngay def pour am na sil yu xewoon fan yee mooy benn benn yi nit ñi dañ ko daan teg benn par benn di ko dugal sa biir bët mais instant yi dañu moderniser indi sil yoo xamante ni sil lal la dangay teg nii rek collé ci kaw bët bi. ci ngay teg du laa sa bët du la déranger du def dara loolu du am benn effet sa bët ba pare boo paree nii rek su ma demee nii paree nii léegi mën naa def nii rek mu deñ te du ma gaañ du def dara. léegi oh, loolu du dara parce que ñun jigéen africain yi moom dañoo rafet macha allah bu buñ naturelee sax dañuy rafet. jar jar na la parce que boo sañsee génnee sol euh, ñawloo sa yére bu bees tàkk jënd jeesneer wala tisi foo changer changé kanam bi touti comme chaque jour ni ngay mel nga changer nga ni kay tey sol na yére bu bees faaw ma ci maquillage ñu xamni ni li ma sañsee valeur lool mo waral maquillage bi ñi def mais ñun mom ñëpp a rafet ku ci xey sol yére sax da ngay dem ah jigéen moom moo ko war a def waaw góor bu koy def moom <laughs> ça se fait oh. hmm? comme am na góor ñu koy def pour man góor ñu koy monter nga góor ñu koy def bëri na léegi marché Zing HLM léegi foo dem góor ñu ñoo ëpp jigéen ñi ñu koy def mais loolu liggéey jigéen la liggéey jigéen la xëy na góor ñu ñoom ñoo ñëw jël suñu place ba pare ñoom ñoo ci gën rapide daañu ba pare ñoom lu ñu lay defar mun nañ la gaañ du ñu sóoraane jigéen nga sa bët dafa sensible et mais dañuy ñëw rek ñoom nu ñu leen mayee xaalis rek fat fat ñu tafal la nga dem. Euh, am na benn poudre bu ñuy bu ñuy wax euh, Marie euh, bonbon la ak kii këriñ lañ koy defaree. waaw boobu dafay xaw a niin tuuti suñu paree nii suñu maquillage bu mu gaaw dañuy def nii rek def nii jël mouchoir fomp lépp dañ non no non man moom boobu man moom laay utiliser parce que dama ko mës a gis fenn ñu def ko waaw après mu commencé di ko di ko di ko def mais bi ma ko delee def ba tey waxuma la sax setal sa setal maquillage mais day gome sa kanam en même temps nen lañ koy defaree zone bi ma xoos criñ euh, ménager ko nen bi def tuuti beurre xam nga day niin waaw su ma su ma paree maquillage bëgg mu deñ damay jël kii bi def ko ci kanam gi jël mu mouchoir rek fomp yëpp deñ ba pare day gome waale sa kanam day set wecc waaw am naa beneen boo xam ne fuddan fuddan laay jël ak nen tamit ménager ko boobu pour avant ngay maquillé woo pour mu setal sa kanam bi nga xam ne boo maquillé woo du def ay peau glace affaire yooyu yooyu ngay njëkk a gome sa kanam boo paree sël mu fomp ba mu wow après ñu maquillé la day day day day nice ok hmm? non marié laa ma waa Instagram dama fay dugal samay ay vidéo ak WhatsApp sama client yi nga xamante ne yoon nañ samay contact su ma defaree kenn dugal ko yenn saa yi nit ñëw na ma bi nga statut woon Créo laa bëgg nga defaral ma ko tey bu baax mhm. d'accord